unaasin summa xayruhum xuraychuhum wa fiihi fiihimu xayrihim wa huwa sallallahu alayhi wa sallam ah wallahu yaxluqu wa yaxtaaru maa kaana lahum alxiyara cheikhul xaaji Malick min ixtiyaari rabbihi leer na yàlla ko wax de man alxuraan lay wax wallaahu buur yàlla ñu ne ah mu ne yaxluqu maa bind man yàlla wa yaxtaaru may tànn maa dee kaana di nekk alxiyaratu tànneef ci yéen lahum maa kaana lahum alxiyara maa déet kaana muy nekk te du nekk ba fow alxiyaratu tànneef lahum ñeel leen noonu nga koy firi wallahu yaxluqu wa yaxtaaru ma kaana lahum alxiyara min al ixtiyaar Maodo jiwuwuñ tànn la Cheikh Umar bi mu defee recherche recherche bi Cheikh Umar njëkk a def ñaar la mos a def ci recherche te yépp tariixaa ko waral moom Cheikh Al Hadj lii may waxit ku ko weddi demal ba ci Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Omar nga laaj ko dana la ci wax lépp li ma la wax ndax am na yum ma ciy wax yoo xam ne man du ma ko nettali wallahi ñii xam nañ ci dara am na yu may wax ci Cheikh Omar yoo xam ne man du ma ko wax mukk ci mbooloo xanaa léeg-léeg ma mu wét rek mosal ci gaa yi te xam naa nag kenn gën te xam Cheikh Omar Cerno Bachir moom du tàqalikook Cheikh Omar sax fii Thierno Bachir mii ngay gis midi matin soir mu ngeeg Cheikh Al Hadj Omar te du ko doxe midi matin soir mu ngeeg Cheikh Omar mii ngay gis am na yu ma ci wax ñi ñemewu ma ko nettali boo gisee Cheikh Thierno Bachiru dof ci sëñ Abdou Thierno Seydou Nourou dof ci Seydul Xaaji Malik mbir la waaye nit ñi nañ bàyyi caaxaan Cerno Saidu Nuuru bi muy ñëw ci Cheikhul Xaaji Malik jàng siwu fa dara ut siwu wu fa dara boobu matal na lépp ci digganteem ak boromam Cerno Saidu Nuuru bii ngay gis te boobu am na cinquante 52 ans bi muy ñëw ci Maodo il cinquante 52 ans kon xam nga du xale juróom fukki at ak ñaar la am door a ñëw ci Seydul Xaaji Malik jàng na ba dajal li war a xam yépp mu xam ko ci lasaraar ci xam-xam ci lu mu mën a doon Cheikh ca alaaji Cerno Saidu Nuuru xam na ko mën na ko jàng na ko am na ko yàlla def damay joxe pour nit ñi xam ne li may wax waxuma ko ngir duufalal Seydi Hadj Malick Maodo dafa dafa am li mu am ma door a mën a wax ci moom alaaji Cerno Saidu nuru bi muy ñëw ci Cheikhul Hadj Malick lu doomu soxna di xam xam na ko lu doomu soxna di am am na ko lu mu war a am ci wilaaya am na ko door a ñëw ci Maodo ba muy tàggu góor gi Maxtaar Saaxo sëriñam pour ñëw ci Maodo góor gi dafa bañoon ndax xam valeur u Cheikh Al Hadj euh, euh, euh, Thierno Saïdou xam valeur góor gi bañ mu naxanteeg moom góor gi ne ko danga may bayal tool tool bi bu jeexee bay ba ñor nga góob ko indil ma ko doo ci lekk dara lépp nga may jox sàkketal ma kër gi ba mu nekk benn bunt ma door laa bàyyi nga dem ca Maodo Cheikhu Cerno Cerno Saidu Nuru bay toolu gerte toolu dugub benn la ko waxoon moom mu bay ñaar toolu gerte bi pare toolu dugub bi pare mu góob yépp dugub bi mu def ko ci sàq gerte gi mu def ko ci saaku indil ko sëriñ bi sàkket kër gi xam ngeen këru sëriñ ni muy toll sàkketal ko boppam ba mu nekk benn bunt mu ràbb bunt wéeru ko ci ne sëriñ bi matal naa la ma waxoon matalal li nga waxoon ndax Maodo jaral na ma ko ma teg bët Maodo Cerno Saydu Nuur góor gi ne ko maa ko waxoon sama làmmiñ rëcc na ma waaye bëgguma nga dem waaye faw nga dem kon nag sama xol sedd na ci yow góor gi Maxtaar Saaxo ñaanal alaaji Cerno Saidu Nuuru mu teg fekk ci Seydi El Hadj Malick loolu entre la pour nga xam kuy Maodo te dinaa ci ñëw Maodo mag ñi ko wër ñëpp jàngalu ci kenn ñëpp dañoo kummal xam nga kummal yegg ci plafond ba au sommet door a gisanteeg Maodo wàcc ba mel ni xarum yar nooy nepp beraw fëriñ waaf lu ko mooy Maodo écrasé la te yëpp dinaa la indil par benn te li may wax lu ma xam la làmbatuwuma ko ñi ko xam ñoo ma ko nettali fekkewuma ko waaye ñi ko xam ñoo ma ko nettali te soriwul ñi ma la wax ñii la soxla El Hadj Abdou Aziz ñëpp xam nañ ko Cerno Yaxya yi ñëpp xam nañ ko sëñ Moustapha Ndong moom la ci ñu bari xamul waaye ñi xam Tiwaawan xam nañ sëñ Moustapha Ndong yàlla def Cerno Saydu Nuuru ñëw ci Seexul Xaaji Maalik bi muy ñëw ci Maodo dafa baaj waaj lu ne tari na ko lu ne jàng na ko def na ci xalwa pour musulu ci Maodo ndax ragal ko daf ko xam ndax maamam Cheikh Umar moo ko booleeg moom nit ñi nañ xam kuy Cerno Seydou Nourou est-ce que xam ngeen kuy Cerno Seydou Nourou Nouroo ko jur Cheikh Umar gàtt lool moo tax ñu naan Cerno Seydou Nourou Nouroo ko jur Nourou moomu Cheikh Umar Fuuti yoo ko jur te Nourou ci ñu doon Cheikh Umar gannaawam ci la bokk dafa am doom yu jiitu Cheikh Umar te nuuru ñi doon Cheikh Umar gannaawam ci la bokk. ak muntaga daaxa Cheikh Oumar dafa gàtt lool nu Cerno Saidu Nuuru maamam wax ko kuy Maodo foofu laa jëm moo tax mu ragal Seydul Haj Malik def na ci xalwa bi muy ñëw ci Maodo nee na mu ngi yoroon ñeenti kuyel jinne yoo xam ne yum leen sant mu def ko bokkoon na ci ay àndandooram maanaam moo leen yilifoon nag ñu nekk ay taalibeem gaa yi li ñuy woote yëpp gisaguma fi taalibe yi jinne nga yilif leen mboole ci déedéet ñu ci bari jinne yee leen yilif de di leen sant ñuy def ñoom it ñu door di leen defal ah ñun ñu xam ne xew jinne yi dañ lay imposer defal lii boo ko deful ñu ëj nga def ñu door a def ñoom bokk lag jinne yi nekk sa taaliba nga di leen liggéeyloo par la force tawan aw karhan ka seydina suleymaan foofu lay jógee yoon ci yàlla suleymaan nam notee woon jinne yi di leen liggéeyloo midi matin soir te sañu ñoo bañ cheikh alxaaji noonu la melo yàlla def bi mu ñëwee ci Maodo mu ne ah kilifa la xam na lu ne naa def très attention bi mu ñëwee bay jub Tiwaawan diggante Tiwaawan ak Njaasaan mu bàyyi ñetti jinne yi foofu ne leen xaar leen ma fii ba ma wëññeeku ànd ak ñaar yi dem bi muy dugg Tiwaawan Seydul Xaaji Malik yëg ne dugg na Tiwaawan mu gàttandu ci ko ci buntu Tiwaawan ànd ak moom ñëw ne ko sa maam jiitu na la fi wax na ma ne yaa ngi ñëw ñu dugg ci seen pantare boobu waxtaan mu wax Maodo lim soxla Maodo wax ko nangul ko bokk na ca lam wax Seydul Xaaji Malik kilifa gu ma mën a yore àddina ak àllaaxira laa soxla te gis naa ko ci yow Cerno <laughs> Saydu Nuur kilifa gu ma mën a yore àddina ak àllaaxira soxla te gis naa ko ci yow loolu rek laay wër ñi ma dajeel ñépp àddina rek lañ ma yore waaye àllaaxira mën a luñ ma fa dara may seen kilifa ci àllaaxira te ku nekk sama kilifa ci àllaaxira laa soxla te yow mii la sama maam moo ma ko wax daldi na ko te yow bu dutoon sama maam doo am ñu waxtaan seen waxtaanu biir Cheikhul Hadji Malick nangul ko ne ko waaye mayit ci charte faw dangay nangu ne yaay sama kilifa ci xaqiiqa ndax sa maam Cheikh Umar mu ne ko nangu na mu ne ko beneen bi ci desit tubaab bi awma seen jot te dañ may soxla saa su ne ma bëggoon nga may ma rek taal ma doxale la sama digganteeg tubaab bi luñ ma laaj ñu yem ci yow nga tontu leen luñ bëgg nga defal leen ko ñu bañ a yegg si ci man mu ne ko may naa la ko moo taxoon si Cerno Saydu Nuuru dox diggante tubaab beeg Cheikh El Hadj Malick ba bu Maodo demee mu dox diggante sëñ Babacar si ak Senghor loolu mën naa la ci wax yu yaatu waaye comme loolu taxul ñu jóg pour ñu xam koy Maodo bi mu waxtaanee moom ba Maodo nangul ko Maodo ne ko noo def ci wàllu soxna mu ne ko dencaguma te boo am na cinquante 52 ans di Maodo ne ko ah kon mënoo dem nag faw ma may la sama doom Maodo njëkk a may Thierno Saïdou Nourou doomam koo koy sëriñ loolu ñu bari xamuñ ko. ci la ko may doomam mooy Cheikh El Hadj amuñ ci doom ñoom ñaar soxna sa génn àddina ci la Thierno Saïdou Nourou door a uti beneen soxna bi Saïdou Thierno du Nourou di dem nag bi mu waxtaanee ak Maodo bay dem Maodo ne ko waaw ñaar ñi nga àndal li ñuy wax yëpp ñu ngi toog luñ ñuy def ci yow mu ne ko ñan mu ne ko ñaari jinne yi nga àndal diw ak diw tudd seen tur Cerno Seydou Nourou xam na ne kii xam na ne qu'est-ce qui xam na Maodo dafa tudd seen ne ko diw mii ak diw mii nga àndal lu tax mu ne ko ah samay taalibe lañ mu ne ko tarixa bi bëgg ko yeewi leen ñu dem mu ne ko may yaay sama kilifa loo ma rek loolu lay def mu yeewee leen ci saa si ijaazaal leen moom Cerno Seydou Nourou Maodo ñaanal leen ne leen yeewi naa leen dem leen yi du Nuuru jóg bay dem Maodo ne ko taal boo demee ñett ña nga bàyyi diggante Tiwaawan ak Njaasaan nga boole leen ci mu xam ne kii du nit muy dem mu ne ko taal boo demee diw ak diw ak diw la nga ne leen ñaanal naa leen yeewi naa leen ñi ma yeewee ñaar ñii te maa ngi yow ñu des te yàlla tax ñu xool ku Cheikh Umar jur kenn du la ci tane te Cheikh Umar si booy sëriñ ñëpp dégg ngeen ko ma door a dugg sëñ la Amin nettali ko fii gàmm da ngeen di dañ gaaw a fàtte nit ñi rek fii ci zawiya bi ki jógee woon Mali du ma tudd turam di setu Cheikh Umar ñëw gane si El Hadj Thierno Seydou Nourou nde ko rey ko la bëggoon génne pistolet ci guddi gi dóor tàkkut mu dóor tàkkut mu dóor tàkkut Cerno Saïd Nourou ne ko daga dof rek man fetel du rey li may reyee ngi nii ma jàkkaarloog moom xam naa kañ laay dee ak fu may dee ak fuñ may suul nga bëgg maa rey yow moom mënoo maa rey yàlla may rey di nga di ñàkk àddina ak àllaaxira taalibe yi na kër kër ñu jàpp ko yóbbu ko denc ko ci kaso bi ñu sëriñ Serigne kër si wax ko ko Serigne Babacar woo Alaaji Cerno Saïd Nourou wax ko ko ne ko Cerno Seydou nuru ne ko baal naa ko ñu ne ko boo ko baalee ñun du tee yoon dina ko topp sëñ baabakat ne nañ ko ko indil ñu indil ko ko mu ne ko dama bëgg nga wax ma lu la Seydou def ñun ñépp bu dee bor la ñu fay ko ba nga bëgg ko rey mu ne dara defuma dara yoreelu ma dara sëñ Babacar ne ko kon lu xew mu ne ko dafa mel nuñ melut te Maodo ko ko def mu ne ko Seydou daa mel nuñ melut te Maodo ko ko def ma bëgg ko rey ñu yem mu yem ak ñun raw nañu ba faw te kenn defu ko ci moom ko dut Alaaji Malik dégg ngeen sëñ Abdou nettali ko ñuy naxante sëñ Babacar di naxante gouverneur di naxante ak moom bañ ne danañ ko baal danañ ko bàyyi mu dem waaye dañ koy dugal ci oto ànd ak i garde ba Mali frontière u Mali ak Sénégal ñu bàyyi ko waaye fii bu mu fi dëggati tànkam ñu nangul sëñ Babacar ñu dugal kooku ci oto garde yi topp ko ba frontière Sénégal ak Mali ñu bàyyi ko mu dugg Mali ndax Seydou Nourou dafa ne bu ko kenn tëj baal na ko mu Seydou Nourou waaw kooku nag li ko may loolu mooy Cheikh Al Hadj Omar moo doon seet. ñaari yoon la mas a def xëlwa di laaj boromam benn bi kan moo koy donn ilaa yawmil xiyaamati beneen bi dafa bëggoon tariixa boppam ndax yëg na ne yegg na fi yàlla ñi am tariixa yépp ñoom Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani fi ñu yegg yegg na fa kon soxla na tariixa tariixa bi Cheikh Umar xalwa bi mu dugg bi mu ciy dugg Cerno Bachiru Muntaga nee na loxo pepp la yóbbaale te nangoo naa ko ci làmmiñu si ñab du Cerno Bachir door ko nettali loxo pepp la yóbbaale dafa taxaw ñu tabax néeg wër ko amut bunt mu ne li ma bëgg danaa ko am walla ma dee ñu boole ma suul ma ci biir néeg bi amul toiture it nag boole ci te buy taw du tooy naaj du ko tiim ñetti fan la def ci xalwa bi yonent bi ne ko jameet ci kanamam ne ko loo bëgg mu ne ko tariixa comme ñépp yonent bi ne ko mënta nekk buñ garantiwul moo fi des waaye yiñ garanti jeex na ci sama sët bi la yem Cheikhuna Tidiane mu ne ko boo bëggee nag ñu jox la buñ garantiwul nga garantil ko sa bopp ak ñi aju mu ne ko bëgguma boobu boo garanti yow laa bëgg rasulullah mu ne ko déggoo li ma la wax boobu jeex na récépissé yi yiñ garanti récépissé bi yooyu jeex na ca azal ci sama sët bi la yem Cheikhu na Tijaani yéegi léegi yi fi des ay attestation la yaa koy garanti boo bëggee ñu jox la yow ngay garanti bi mu ne ko bëgguma boobu mu ne ko kon tënkul ci sama sët bi mu ne ko wan ma ay mayam Cheikh El Hadj na benn palanteer la ko yonent bi ubbil ne ko lii mooy li gën a tuuti ci mayu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Cheikh Omar nee na bi ma yoree palanteer bi wóor na ma ne mën naa jaamu yàlla jun juróom fukki junni at te duma ci yéeg mu ne ma yenn ma ne yonent bi sa bi doy na ma tënku naa ci moom mu ne yonent bi keroog la ma ubbil bunt ci na tiijaan yi boo xam ne ci laa rawee ñépp mu ne man Omar al Fuuti yi ku ma raw fa rawee mu ne keroog laa yëg ci sama bopp ne àddina ak àllaaxiraa ci sama loxo bi ma koy soppandikoo nu mu ma neexee mu ne keroog laa yëg ci sama bopp it dem asamaan ñëwaat miin mbedd yi nu raw ni ma miinee mbedd suuf yi man Omar al Fuuti mu laajaat boromam ne ko lii li muy neex neex ndono laa bëgg ku ko yenu te bokk ci man na maam Ibrahima alayhi xam nga tariqa bi moo tax nga dégg ñu naan tariq bu ma di ngeen dégg bu ma koy joxe ma koy wax tariqatul muhammadiya ahmadiya ibrahimiya xanafiya yépp ay daraja la ci tariqa bi ay buñ ci doon dugg beneen bunt la maam Ibrahima xam nga ñim njur ñëpp yonent lañ dëgg la wala du dëgg moo tax ñu ne Ibrahimiya tarixa bi daf ci am Ibrahimiya Maodo ci Ibrahimiya yi la bokk ku bokk ci Ibrahimiya bi boo bokkee ci Muhammadiya bi di nga am sallallahu alayhi wa dinga am ñu la doon waaye du weesu benn. leer ndax yonent bi Fatima rekk a ko doon woon ci kum jur ñekk xutbul fardul jaami bi mu demee Seydina Abubakar ci topp juru ko bi mu demee ko ci topp Seydina Usmaan Seydina Omar juru ko bi mu demee ko ci topp Seydina Usmaan juru ko bi mu demee ko ci topp Seydina Ali juru ko moo tax muhammadiye bi bu la ci yàlla yéegalee neex na waaye doo am ku la doon ku dul benn nit bu la yàlla yéegalee ci xanafiya bi say sët dinañ baax dinañ jub waaye duñ la doon ci ibrahimiya bi rekk ngay yéeg say doom ak say sët di la doon ilaa yawmi yubaasuuna ndax maam ibrahima mooy abul anbiyaa yi min ladun aadama ila nafxati fi suuri ku fi baax moo la jur ci anbiyaa yi maam ibrahima moo tax yahud yi daan ko xëccoo ak nasaraan yi maa kaana ibrahim yàlla addu maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa maa kaana min al kéefir min al mushrikin jeex na inna awla naasi bi ibrahim laladi jeex na alxuraan laay wax de lii mooy tariqa bi boo bokkee ci ibrahimiya bi moo tax Cheikh Umar doon rey boppam laaj boromam ndax ci ibrahimiya bi la tënku wala ci ahmadiya bi wala ci xanafiya bi tariqatul ibrahimiya muhammadiya ahmadiya xanafiya yàlla xamal ko ne ko ca dëgg-dëgg nag ci xanafiya bi laal nga ci laal nga ci ahmadiya bi waaye ibrahimiya bi bokkoo ci muhammadiya bi moo tax amadu cheikhu doon na ko xanafiya bi moo tax sëtam yépp di ponkal ba ci cam Cheikh na Bachir Muntaga daaxa cheikhu ma ibrahimiya bi nag foofu la wax ji nekkoon mu ne yonent bi ne ko nag mosalal ñi des nag yow itam doo jël cër yépp boole ko mosalal ñi ci des ñett ñaari cër yëpp doon nañ ko ko bàyyil benn bi nag ñu séddi ko mu ne ko nañ ko sédd ki ma neex Cheikh Omar mooy wax de mu ne yonent bi dama bëgg ñu sédd ko boo ki ma neex ki ma tànn man ñu sédd ko ko yonent bi ne ko ànd naa ci comme xam na ne buntu bale fatt na muy jeex ci tarixa bi kum ko mën a wéer gisu ko bunt bu mu ubbi ci wilaaya rek gis ne am na limite mu tëj ndax bunt yi dafa am wilaaya dafa am ay bunt waaw ah? wilaaya moo jiitu nubuwa moo tax yonent yépp ay wali yu lañ waaye du wali yépp ay yonent lañ wilaaya moo jiitu nubuwa wa annal walaayata lillahi alxaq moo tax wilaaya moo jiitu nubuwa yonant boo gis waliyu la amul benn yonant bu mën a nekk yonent te du waliyu njëkk moo tax ndaw yonant balaa ñu ko yónni ngay gis muy jaamu yàlla ci façon boo xam ne nit ñi xamuñu ko parce que waliyu la day am ay ilham yuy jógee ci boromam ak ay waaridaat yuy wàcc ci moom mu di ko jëfandikoo ba nubuwa gi di ñëw nag yàlla roof ko nubuwa muy def di dindi wa anna al walaayata lillaahi al yàlla def Cheikh Umar bunt bu mu ubbi gis ne bii wilaaya gi am na fu mu yem mu jeex loolu day am day am loolu bëgguma ci dugg sax nit ñi foog leneen ak leneen day am ñi néeg yi amee du yéenay wax sama néegub ndey ak sama néegu baay du yéen a koy néeg dafa am lu tax nga naan sama néegum ndey lu tax waxoo sama réewu ndey lu tax waxoo sama pencum ndey sama néegum ndey ak sama néegum baay arwax yaa tax junudun mujannada néeg yañ nekkoon moom la Cheikh Umar di ubbi gis ne fii wilaaya gi am na fu mu yem bokkul ci ibrahimiyatu bi mu ubbee bi mu ubbee nag baytul ibrahimiya fa la fekk Cheikhul Xaaji Malik fa la tànnee Maodo foofu Maodo lànk na waaw dafa lànk ne Cheikh Umar du ñëw ne Cheikhu na Tiijaan yi lànkee woon ne yonent bi tarixa bi duma ko jël te joxoo ma garanti yonent bi ne ko yan garanti nga bëgg Cheikhu na Tiijaan yi di ko ko tegal gi ak ñëpp jàng ngeen ko Maodo indi na ko wala déet mu di ko tegal garantie yonent bi ne ko nangu naa mawtu alal imaan yi ci la bokkoon nangu naa jaawisu siraat ci la bokkoon mu ne ko nangu naa ba ñuy ñaar fukk ak lu teg yonent bi nangu naa Cheikhuna Tijaan yi door ko wax nangu naa mu jox ko tarixa bi yonent bi jox ko tarixatu tijaaniya wa hakaza Maodo Cheikh Alxaaji Malik ak Cheikh Umar Maodo lank Cheikh Omar ne ko ndax du la tor ko ilaa yub ilaa yarisal ard wa man aleyha mu ne ko nangu na mu ne ko kaay ñu ànd ci la Cheikh Omar nag déclenché juddug Seydul Xaaji bi maam Ousmane ñëwee gaaya ba waxanteeg maam Alfa la mu waxanteeg moom fekk la ko jiitu nag maam Alpha demoon nañ ziyaara ji loolu ñëpp xam nañ ko demoon nañ ziyaara ji Cheikh El Hadj Omar bañ koy ziyaara ji maam Fawad Wele dafa jër fukki sëru rabal jox ko ko ne ko soo demee wali boobu may dégg te boobu maam maam Fawad Wele xam na Cheikh Omar ndax yàlla won na ko moo tax mu sonn ci. booba it maam faa wàdd wele yàlla xamal na ko ne sa mbir ci Cheikh Umar lay jaar moo tax jigéen ju doy waar la woon ma wax leen ko ci njëlbeen maam faa wàdd wele nag jox jigéenam eh, càmmeñam bi muy maam Alfa fukki sër yi yóbbante yi ci dëkk bi nag biñ leen ko joxee yóbbante yi bari biñ demee ba ci yoon yenu beeg yenneeku bi sonal leen maam Alfa lii du xel jël benn sër ci sër yi rabal yi jaaye ko jëndee ko benn mberkel la ngoox mooy mbaam du mbaam du du fas ñu yeb ci bagaas yi nag mu jiital ñu dàq muy dem bi dara desut lu du ñu war a yegg si Cheikh Al Hadj Omar yebal bëkk néegam ndax daf ko fekk ci xalwa mu yebal bëkk néegam ne ko ëllëg ci tàkkusaan am na njëgg muy ñëw temps ci personne lañ am na ñu ne fukki nit lañ woon am ñu ne fukki nit ak benn lañ woon ëpp ko waaye fukki nit lañ woon inna iddata shuhuri inda allahi asharatu tilka asharatun kaamila mawdo minal Kumala biñ ci yegsee Cheikh Omar ne bëkk néeg bi nanga ma leen dagandul balaa ñoo yegsi nga xëyu leen xëyu may eh ñu xam ne am na koy wax ak ñoom mu ne suñ taxawee nga laajte ci ñoom kan moo ci alfahim ma yore wele kan moo ci alfahim wele boo bi mu ñëwee ba yegsi ci ñoom ne ne hé ñu wuyu ko mu ne kan ci yéen mooy alpha him wele alfa mayor alfa wele ñu ne mu ne man mu ne ñëw leen Cheikh Umar nee na yow lay recevoir wax ak yow nga wax ak ñi ci des ndax dafa nekk ci xalwa te xalwa nanguwul wax ju bari ñu ñëw Cheikh Alxaaj Umar recevoir maam alfa ne ko ana sa jigéen bi ñuy wax faawaat de wele mu ne ko mu nga fa mu ne ko sa ñëw bi de neex na ma lool waaye sa jigéen boobu baax na baax na sa jigéen boobu moo ëpp moo ma itteel mu ne ko sa ñëw bi neex na ma lool waaye sa jigéen boobu nag moo ma itteel mu ne ko ci lu tax mu ne ko mooy jur sama ndono waaw mu ne ko sama ndono baax na moo koy jur xaal jàpp Cheikh Al mu ne ko sa jigéen boobu bu ko sàgganee de yaakaaru àdduna ak àllaaxiraa ngi ci moom mu ne ko dina boo ñibbee dina am góor gu fay ñëw Ousmane la tudd tuddul Demba Xoreja Ousmane moo nekk ca azal ca turam wa moo tax Maodo génnee ji Ousmane inni ubashirukum bi rasulin yaatiya min baadi ismuhu ahmadu moo ne woon ca kaw moo tax mu ne ahmadu waaye muhammadun fil ardi moo tax bi mu ñëwee nag mu ne mu ne leen nag ci Osman lay tudd waaye turu Demba lay indil su ñëwee lu mën a wax téere ko yëkkati waaye téere majaas la ci rek xaqiqatan li ko yëkkati mooy la ca ndiggam la tudd Malick faawaat di wele loolu laa soxla looloo ko yëkkati waaye du téere téere bi dafa mënta ñàkk mu tudd ko waaye xaqiqatan la ko yëkkati mooy au porteur la chèque ba ma ba ci moom chèque boobu laa bëgg mu signé ko mu ne ko te sa jigéen boobu nag moo ko moom sa jigéen boobu boo demee ne ko xelam nekkatul ci am borom kër waaye ne ko ëpp naa def man Omar al Fouti yu nee naa na jël góor googu di ñëw ñu koy wax Demba ja te Ousmane la tudd na nangu mu nekk boroom këram yaakaaru àdduna ak àllaaxira yàlla jox na ko ko maamal fa ne ko man dey tarixa laa bëggoon moom laa ut si woon mu ne ko waaye tarixa bi ma lay jox kay tax nga nekk ca dara yow ba nit ñi xam la ci mooy kii may wax bu dul woon Cheikh Al Hadj Malick kenn du xam maam Alpha ah il la vérité ah bu dul woon maam kenn du xam maam Alpha ah, yow tam caaxaan baaxut Cheikh man na ko naa la jox tariqa waaye tariqa bi ma lay jox ku la ca xam pour nga nekk ca dara sa jarbaat bii mooy tax nga nekk ko fonkal ma sa jarbaat bii te juddoogut Cheikh Umar ne ko bu juddoo Malik lay tudd jox ko référence yépp wax lépp Maodo fàtte maam Alpha mel ni maam alfa existé wul wax ko léppi Maodo minal azal maam Alpha ku doy waar la te ne pat wax ko fi jaar xalawa yi lam ci gis digganteem ak boromam li ko yonent bi won ci ci maam euh, Seydul Xaaji Malik lim ko ci wax yépp Cheikh Omar nettali ko ko won ko ko yàqazatan tegal ko film bi muy gis loolu dara ci nitu yàlla ba Basiru mi baayam def na ko yéeri tu pël bu jógee woon fu kenn xamul ñëw bëgg a gis bàyyam Cerno Muntaga Daha bii bàyyi Cerno Bachiru ne ko sa bàyyi nga bëgg a gis mu ne ah mu ne ko dafa am bor yi ñe eh, fukki dërëm ak juróom fayal ko ko ma wan la ko mu nga ci àllaaxira yàlla bàyyeegu ko <laughs> yére ne ko man ni ma am ci alal sama bàyyi ñu koy téye te boobu yére ëpp alal ci luga mu fayal mu ne ko génneel naa ko ko am nga jox ko ko nga fayal ko bor bi Cerno Bachiru mooy nettali nee na bàyyam nii la def rek bàyyi yére yegg si mu ne yére xam nga sa bàyyi mu ne ko kii mu ne ko nuyu Thierno Mountaga bii ñu dañ ci Louga te sulee woon ko Dakar yóbbu ko luga yéeri nuyu baayam waxtaan ak moom ba noppi ne ko won ma sama maam mu ne ko ëpp na yamal ci sa baay rek waaye sa maam moom mënoo ko gis keroog la yéeri jébbalu ci moom jël tariqa ci moom te Seydul Xaaji Malik moo ko yëbal ci Thierno Mountaga ndax Maodo la fekki woon Thierno Bachir moo ma ko nettali Maodo la fekke woon pour Maodo jubbanti ko ndax boobu yéere yor na lu dul jeex ci alal ba muy dem nee na bot yu toll fii la sol ak mbaxanaam tengaa doog fas bu bu bu rafet fekk Seydi Hadji Malick njaaru ne ñëw ne Maodo gis nga ma xam nga pël bu am xaalis baal ma alsaan sow xam nga pël bu am xaalis day mën a wanewu baal ma de alsaan mbokkoo ci ana alsaan waaw ah? mu ne Maodo gis nga ni ma mel Cerno Bachiroo ma nettali de gis nga ni ma mel mu ne Maodo ne ko waa gis naa la mu ne ko xaalis nag jeexaluma ko li ma ci am xaw ma nu mu toll mu ne ko te jur moom nag ak xar ak béy ne ko li ma ci am xaw ma nu mu toll gétt dafa may romb sax ñu ne yaa ko moom fekk xaw ma ko Maodo ne ko loo bëggoon mu ne ko ku ma won àllaaxira te garanti ma àllaaxira julliwuma nag man jullit laa de waaye julleeguma ndax foog ma am garantie pour julli ndax di julli nii rek rek rek wóorul yéeri mu ne ko balaa ma julli daf may wóor ne fa may dem mooy dàq fii ndax fii baax na ba pare dama bëgg fële dàq ko yow nag dégg naa sa naasere ak ak boobu nii la ma ko ci am na Bachir nettali mu ne ko dégg naa sa ak naa naasiril ak ak boobu lu ne lu ne mën nga ko ci ma bëgg nag nga defal ma loolu mu ne Maodo muñ ne ko yéeri li nga wax diis na danaa la boole góor gu ko man mu ne ko ban góor mu ne ko góor gu ñuy wax Muntaga Daha mu nga ca Louga soo demee ne ko Malick Fawad de Wele la booleeg man ne na yéeri rëppatal fas wi utal si luga nee bi muy toll ci bunti kër ga rek Cerno Muntaga génnee loxoom ca pantare ba loxo bi sar ba ci bunti kër gi ca pantare ba ca biir kër ga la génne loxo bi ne yéeree ngi ñëw tey ma won ko ne ko maa yore yëf yi ci ndigalu Maodo Cerno Bachir ne na ñépp di gis loxo Muntaga daa Cerno Muntaga daa muy génn ci kër gi traversé ëtt bi ba ca bunti kër ga loxo bi tàll ba yéere yegg loxo bi tourné ni nikk loxo bi yéere ne ko man la muntagaa daax bismillah loxo bi di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba ci pantere bi yéere sukk ci kanam ak bot yim sol dindi tengaado bi ne ko am bari nga kam-kam de li may wax nii Thierno Bachir ma ko nettali de mu ne ko yii bari nga kam-kam waaye des na sa kam-kam bi gëmaguma ko de xam nga pël dafa dëgër fit moo tax ñuy dëkk ci àll bi nga yaakaar ne fi fit rek lañ mu ne ko sa kam-kam bi bari na sa loko bi gis naa ko bi may ñëw waaye man loolu tiitalu ma loko kese kese kese kese loolu tiitalu mu ne ko jàmbaar nga nag waaye tiitu ma de man du tiit car na mun tegaat ko loo bëggoon mu ne ko dama dem ci àllaaji Malick ma wax ko am naa kaalis àddina bi yëpp kam nañ ko duma ko jekkal nag ak kar ak béy duma ko jekkal gëlëm sax am naa ko sama àddina nekk na lool duma julli nag dama bëgg nag ma nekk jullit bu baax may julli waaye balaa may julli dama bëgg ku ma wan allaakira ma gis ko ma xam ne dinaa dem àjjana boobu mooy dàq fii nga wan ma bu dul boobu yiiri bañ na <laughs> ah ca la ñu tàmbale mu ne ko yow balaa ngay wax sa àjjana sa bàyyi duggagul àjjana di xanaa war nga yéene sa bàyyi àjjana mu ne ko ii yow kam nga sama bàyyi mu ne ko sa bàyyi ngi nii may jàkkaarloo ca barzaq demagul safara waaye demagul dafa am ku mu yoree loon bor fukki juróom ak juróom fayal ko ko ma woo ko mu ñëw yéen génne fukk ak jox ko ne ko woo ko mu ne nii la Thierno Bachir ne nii la def rek bàyyam yegg si mu ne ko xam nga kii mu ne ko kay kii kañ moo ma jur mu ne ko waxtaan leen jóg leen ngeen dugg ci pantare bi ngeen waxtaan ñoom ñaar ñu waxtaan ba pare ñëwaat mu ne góor gi nii rek mu def yéene ne ko kam ka léegi gëm naa la léegi moom gëm naa la kam ka kam nga lu mu bëgg nga def ma jullit ak kan waaye nga wan ma suma maam bi jur suma baay nga wax ko mu ñëw mu ne Cerno <laughs> Muntaga ne ko mën naa ko de waaye ndax di ko àttan sama maam boobu bari na daraja ci àllaaxira te buy ñëw da koy indaale est-ce que di nga ko àttan mu ne yéeri ne ko comme nañ ko bàyyi mu ne diiru li yéeri di góor gi di dund mbooleem luy dem ci teraanga ci wàllu nag xar béy moo ko daan jox góor gi Cerno Muntaga daa yére booboo ko ko daan jox Maodo laa lay won kuy Maodo te secret boobu Thierno Mountaga yor Seydul Hadji Malick ko jox